mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar 100 pour cent lamb comme ni ngeen ko xamee tey nag taala ci mbedd la ñu ne ci marché sax bu la neexee nga ne parce que ñu ngi Medina marché Tilène rue 19 angle 20 wala 19 angle bees Diagne mais boo defee daal ay jaaykat ngay gis daa am nag mbër moo xam ne moom laa fi seet mbër mi nag jaaykat la wala boog ci marché bi la nekk daal am na lu muy liggéey dinaa ko seet ndax dinaa ko gis wala du ko gis loolu mooy question bi mais l'essentiel que moom. man yaakaar naa dinaa ko gis mbër mi may seet kan ma mën a yóbbu ci moom ana ku ma yóbbu ci moom la ma bëgg a fay fii mooy marché ci leen taala fii wanteer naa fi bay bëgg a dee fii marché bii wanteer fëgg jaay taala man mën naa taxaw sax su ma neexee mën naa ne gis naa ki may seet saa wàll maa ngi lay bëggee mbër moom da doon jaay gowe la doon jaay léegi mu ngi ci tisi yi bàyyi na gowe gi mais kii kon laa doon seet taala kii mbër la doo ko wan gars yi ñu gis ko wala gars yi koy gis kon kii laa doon seet kon kii nag defe naa mooy Bébé Diouldé champion ci loone taal kii daa mel ni xaas la téye de waaw kii daa mel ni day jaay yow looy def fii waaw fii lañuy ñuy looy door fii waaw fii la ñuy jaay tisi waaw ah. ak suñu grand yi ñoom Ibra ñoom Ismaïla suñu grand ak Baye Fall yëpp waaw ay moor sama doomu nday Birame ah, tisi yee nekk waaw tisi yaa ngi dugal si kële kaay yaa may yóbbu kañ taalal tisi yaa ngi nii sama gars yi bëgg naa leen waa kii kii moom xame naa ko. Ibrahima noonu suñu grand. waaw baax ci ñun. Ibra Ibra. <laughs> Ibra ci loo ne. jàmm naka yi tey yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu baax kay. ah sa waay daa mekk kon doomu jull ah, la jaay ko ah, fii ci marché di moom ñëpp xame nañ ko jaay bu mag la waaw. <laughs> kon yaa ngi nii ana Tafa. Ndiaye nag daa xaw a xam naa daa wut côté bagage waaw. xam ne tamit dafa na am yu fi nekk. waaw kii suñu grand la Baye Sall. ana ñu dugg marché la. jam jam jam ñu bari rek moom sa mbër mi wala boog sa waaj lañ seet si woon bébé Diouldé. waaw waaw. <laughs> bébé suñu frère la suñu rak yu baax vraiment macha allah ñu ngi koy ñaanal. ba tey ñu dugg rek fi yëpp ci marché Tilène la salaamaaleykum kilifa gi ñu ngi lay bëggee papa. lay ziar. jël ñoom Assane rek mais bëgg naa la. waaw liggéey bu làmb ji jotee nga dem làmb bu lig bu làmb ji passé nga ñëw ci liggéey bi liggéey. làmb ji passé daa mel ni yow laa gisoon da ngay am koy def yéenteel ci wàllu mystique ca làmb ji du yaa ko indi woon wala du yow. waaw waaw ñun moom chaque jour ñun ñooy ànd ñooy nekk moom chaque jour naka jeg loolu rek waaw dañuy def li ñu war a def rek. góor gi ñu ngi lay ziar. yéen yàlla boole yorob ziar. maa yaa ngi am jàmm. loo ñu mën wax ci xale bu toll ci fi mu toll yow ngay kilifa yàlla na nga gën a gudd fante wér yàlla defal ko ñëpp loo koy wax ak looy wax xale yi nga xam ne toll nañ fi mu toll bébé julli da xam naa ne moom xale bu yaru la moom bu baax bu nangoo liggéey boo ko gisul ca làmb ja daal mi ngi ci marché bi di daan dooleem fas yéene am loo nga xëy yóbbul ko njabootam rek balaa kilifa gi bëgg naa la waaw maa lay bëgg bu baax nga jàmm am naa jàmm baax tur bi naan la Ibou Ndour waaw mbokkam laa nijaayam laa laa waaw waaw merci noonu la bu Assane Bébé Diouldé Babacar maa ngi lay nuyu di la fay di la wax ci lu ngeen nekk am ngeen jàmm bu baax ah loolu baax na Assane bu Bébé Diouldé loolu moom yàgg naa dégg nga koy wax ci rajo yi de ah loolu moom dégg la moom Assane Bébé Diouldé ngi neex suma jarbaat suñu nekkee ci làmb déggal na ma aussi daal mbër mu yaru la daal am na solo daal waaw mais nag su làmb ji arbitre moom saa bu soufflé moom day dindi yaru gi teg fee def fulaak fayda lu ko yàlla may nag mu xam ne loolu la ko may mais jàmbaar la daal loolu laa mën a wax ci moom daal jaajëf Babacar yow nit ku baax la Assane mën naa ne ñaari booy lay àndal boo gisul boo ma gisul ci ma ànd ak moom biraan nga giseel sama seex la sama doom baay la ba tey rek xam nga comme ni ma la ko waxee mbër kii mooy kan ki nga toogal ni waa kii moom mën naa ne papa si ñun suñu papa suñu lépp la kii mooy Baye Bada Song mooy suñu entraîneur mooy suñu coach moo ñu yor wàllu physique wàllu boxe lépp moo ñu ko yor wax yàlla di kontaan ci moom bu baax a baax di ko ñaan yàlla guddal fanam mhm. Baye maa ngi lay ziar. waaw ñuy delloo ziar. Babacar. waaw man sa kii Bébé Diouldé suma doom la. E, ndax xam naa dafa kii ne maay entraîneur am mais sama doom la ku ma dëggal la ci liggéey bi muy def yàlla na ko ci yàlla defal jàmm ba mu nekk ci roi de arènes ndax li ma koy teg mu ngi koy tegoo te mu ngi may dëggal ni mu ma war a dëggal ci kàttanu yàlla. ñu ngi koy ñaanal bu baax rek. waaw moor mën naa ne man itam sama papa ndax depuis mbappatu Serigne Ndiaye Air Liquide lal ma gis may bëree ma neex ko lool mu nekk koo xam ne maanaam xolam dafa laabir mu ne booy bii nañ ko jàppale. ndax jour boobu man mu ne jour bi ma njëkk a daan mbaartin ci mbappat keroog lal ma ne ma la laaj Serigne Ndiaye ñu ne ko kii bawal la dëkk mu ne ma doo récup mu ne Serigne Ndiaye récupéré booy boobu mu peree ma moom Serigne yóbbu ma kusum ñu entraîné boo ci ngoon bi ñu paree mu woo ma ma ñëw mu ne ma liggéeyal boo liggéeyee yàlla mën na def nga am dara ci làmb parce que gis nañu qualité yooyu yooyu bëre làmb dina tollu benn moment boo xam ne nii dina doon dara bu liggéeyal daal ñuy dem di dem bo wax dëgg fa yàlla dem na fi sax ñëw na topp ma côté bu ne topp na ma sax ba bawal ak ni mu toll ak euh, daraja ji ko yàlla jox ak jullite gi ko yàlla jox yàlla boole nu benn patron muy Kamal Salime yàlla na ko yàlla yërëm wàññeeku na. waaw dafa leer waaw loolu leer na waaw mbër moom sunu waay la sunu xarit la sunu lépp la daal xanaa mbër gi daal fekk si affaire yi rek. moo fa man nga ñëw ci marché bi moo fa man nga dem ci làmb ji moo fa man leer na am na jom nangu naa liggéey fajar lay yeewu di dañ dañi ci géej gi. ñëw lal commencé liggéey digg bëccëg mu demaat entraîné ngoon mu demaat entraîné kon kii am na lu mu bëgg am na fu mu dëgmal am na fu mu teg bëtam yàlla na ko fa yàlla yóbbu. caala caala eh xoolal caala <laughs> di ko wax mu waaj préparé combat yi nekk sa kanamam rek mais Babacar mbëri si kanam nan ñëw bëree ñun nag instant bi nii comme sox mu ngi fi Zarko bu Grand Yoff nan ñëw ñëw bu retraite ay ay les deux yëpp ku ñëw baax na waaw soq baax na soq na ñëw nu bëre moo gën mooy tey waaw na ñëw nu bëre yàgg na trop waaw. waaw ok merci baba gis ngeen Bébé Diouldé ñëw nañ tey ti leen seet si ko taala dem na ci ay entraîneur am ci ay supporter ak ay soppeem moom nag mu ngi nii bu yàggul bëri na ak daam seen daan ko mbër maa ngi lay bëggee waaw Babacar ñun lay waat di nuyu taala di nuyu waa senegal di nuyu monde entier di nuyu mbokk taalibe ak mbokk jullit yëpp di ñaan Sénégal yàlla def si jaamu di nuyu waa marché Tilène gépp jaaykatu tissu yi jaaykatu or yi jaaykatu jën yi surtout suñu yaay jaaykatu jën yi xam ne fajar la ñuy yow daan doole ci marché bi ba guddi ñu door a waas a ci jàpp di nuyu sama mbokk jaaykatu tissu nag di leen ñaanal événement bi ñu jógee liñ lépp luñ si amee rek yàlla def ko xiiwal te muurloo ñu ko événement bi duñ jëm tam aussi dàq ci événement yëpp yàlla defal na ci jàmm tam ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm bàyyi Seydina Muhammad salle d' entraînement maanaam musculation wala contact wala géej tey ñu fekk la sa marché fi ngay dóore waar loolu lu la def waaw loolu dañ ci yàlla bu baax a baax ndax doomu aadama bala nga ko mën a xam da nga ko fekk ci fu muy liggéeyee te ñun ba léegi fi la nekk xamuñu leen du jaay tisi fi la loolu xam te yàlla bu ñu suturaaloon ci ci lañ koy investir waaw dañ ci sant yàlla bu baax dañ ko kontaan ngeen fekk ñu fi ñuy dóoree ndax mënu ngeen a fekk feneen ñuy def leen te loolu doo gën mais fekk ñu fi ñuy liggéey dañ ci sant yàlla bu baax kon daal bébé daa mel ni mbir moom xaalis la de macha allah waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag di ñaan yàlla may ñu xaay tax waaw xaay ma amagul mais dañu ñaan yàlla suñu borom mu suturaal ñu rek arène kañ nga ci dugg ak loolu ci dugal waaw arène moom buñ ci dugg ci làmb moom wax dëgg yàlla du ay bës ak wala ay ji pour tekki tere suñu ay waajur loolu lañ ci dugal waaw ñaata combat nga def ci la arène waaw def nañ ci 14 combats yàlla yàlla la ngi def nañ ci 11 victoire 2 défaites benn match nul di ko sant yàlla bu baax. palmarès daa mel ni riche na de. waaw alhamdulilah sant nañ baax ante sunu ay grand ay ñoom Ibra ñoom Ndiaye Tafa xam nga ak yëpp ay sunu grand bada Baye Bada Bada Joonu ñëpp xam nañ ko si mboru Bawol mu leen di jàppale bu baax sunu entraîneurs yi ñoom Baye Balla seen Cheikh Mbaba au passage mu koy nuyu Espagne ak sunu grand ñoom Njaaxum waa école Cheikh Mbaba di wax Njaaxum félicitation ndam li réy na kontaan nañ ci ndax mooy sunu mag ci écrit ba mooy lépp su ñun di ci baax a baax ñan ñoo la jot a daan. man euh, Maama Lamine moo ma daan ak euh, Birahim Senior mën naa ne kii daf maa daf maa juumloo kii jàngal ma lamb. ku la juumloo si ñoom ñaar. waaw Birahim Senior damaa juumloo. jàngal ma lamb. Ah, maama la jàngal la. maama damaa jàngal. maama tarkindaa bi. waaw noonu la demee nag di ko file ko wax di ko ñaanal jàmm bu baax tam aussi tamit xam nga bëri déggante nañu waaw mu ñaanal ma encouragé ma tam xusi xam ne làmb la woon damaa juum daanu waaw noonu la demee nga jógee foofu ñëw jël Dame Sène xale bu nekkoon ci dynamique de victoire gars yi ne jul de est-ce que doy xaru est-ce que Dame Sène dàqu koo bëri Dame Sène lan moo la ko jël la woon Babacar man ragalu ma mbër su ma demee bay ragal mbër ci laamu ma teg sama ngeema képp ku ñu fi xalaat ne moo mën ci laamu ba nit ñi ko nañ ma ko jox man ragalu ma kenn ndax te dañ maa déelu rafet dama ciy ñime nag. Mhm. Dame seen nu ngeen bëre bëree. Dame waaye conseil lañ bëree rek xam nga pare nañ ko ni ko war a pare ànd suñ kosu bu dem ak si kolobaan wàllu musculation li ñu war a liggéey lépp ñu liggéey ko ak moom ñëw ànd suñ bàyyi bëri ñu liggéey li war a liggéey lépp xam nga kon dañ ci am xel mu dal te bu dee bëree yàlla dogal na am mu ci may bu dee xeex macha allah kon du am lu ñu ragal si moom. dañoo wax ne daam moo la dàq bëri gëm àndoon ci loolu yow. maanaam koo xamul xamoo ko te lamb moom xam naa benn combat tax nga a wane sa lamb lépp tuuti mu demee mu jeex mais benn combat mënoo si wane lamb mais ku topp bébé julli fi xam ne carrément na moom ay songu curó mu a def tegal ko xeex xeex moom laa bëgg mais dafa ñëw yooru si ma ne kawoon muy bët ma àggale ko rek mu daanu loolu la léegi nga jóge foofu dégg nga promoteur yaa ngi ñëw wala. waaw promoteur yi ñu ngi contacter ñu ngi woo sama manager Abdoulaye Ndiaye di ko nuyoo passage sama ancien manager Pa Moussa ko ñaanal suuf sedd ci kawam ci bàyyi Seydina Mohamed ah, ko ñaanal yàlla suñu Mohamed promoteur ñu ngi ñu mais essence saison bi dafa xat date bu baax amatul te samay supporters ay liggéeykat lañu ay boo ko boo ci jëlee combat da nga leen di sonal rek moo tax ñu bëgg a ba déwén ñu journée bu baax incha allah. déwén xel mi ci waaw sunu sunu xel nee na sunu grand yi ñu may ñu comme sunu morom mën ngunoo jël ñu ñaan grand yi ñu may ñu sens yan grand ñoo Modou Anta baax na Modou Anta man lees de Modou Anta ci Thiès waaw yow mii Modou Anta ak lees de ñooñ say ñooñ ñooñ ay xeexkat lañ de pourquoi pas ñu ragaluñu dañ lay jël est ce que nekkoon nii di reefe nii wala wallaay reefe wu ma suñu pare woon suba suba ba bëre ak ñoom Modou Anta bu Thiès Coins sax bu ñëwee bëggee ñu bëree eh Coins mën naa bëri bëri na mbooloo Coins bu bëggee ñu bëree di nuyu Baba Diaw nag bu Baba Diaw bu bu Sumbujum bu Diène Kayré grand bu baax la suñu combat da ci jàpp waaw ñu koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal dinañ képp kuy jàppale Bébé Diouldé rek. mais man dama yow da ma wax ay adversaire yi ma wax moo doy waar lees day xeex ki nga xam mooy Modou Anta balaa dóoru dóore ni ma koy waxee Quench mën naa bëri bëri na mbooloo yow est ce que ñooñu yow yow est ce que da bi neex nga jaay nga sa xaaj tax nga leen dëkk Babacar ni ma ñimee yeewoo sama kër xëy si liggéey si marché ni laa ñimee bëreeg ñoom suñ pare woon suba suba ma bëreeg ñoom wallaay lansim hmm. wallaay du caaxaan ragalu ma dara ci laam nee su ma ragal mbër ci laam ma tekk sama gem bàyyi bëre kenn dugalu ci maa dugal sama bopp mhm. ñooñu da da da nga leen gën a a doon daan a leen budul ñoom budul ñoom jël ma bon garaaw ñooñu moom dama war a bëre ñun du ma leen cité ndax maa leen dàq palmarès xëy na làmb ñu boole ñu war a bëre waaw rëg kuy rëg rëg-rëg bu caaroy pourquoi la jaay sa waay rëg-rëg bi laa eh waay rëg mu caar fay ma xaay ma lekk ko wallaahi dama ci am xel mu dal ah bébé julde xoolal li ngay doomu bawal laa diggante xomba laa juddoo njéen sa dax mbeewaan caacaw nguy sun doorong xam nga kër jul de Bournding Ndiassane foofu ragal mënu faa judoo rek gis nga li mu def bëri ki dem arène nationale yow loolu jaaxaluñu Babacar làmb la rek bëre la rek qualité yu ci bëre moom mën naa yu na ci ñun ñu ko làqu yow dàq foofu mhm. yow daal ñooñ kooku daal kon ku la waaye man dey loolu dina ma joxoon avance suba suba suba esa bi daa ma jël ko lekk ko sa patron waadu moo taxaw ni xama sa patron sa grand Ibra tax ngay wax li kii lu mu lu mu xelam dal ci làmb man sama xel dana lu ko ëpp ndax nit ku baax la war ko Sëñ Tuubaa day sonn si ñun te ñu bokk sëriñ bokkul mënta séddoo nag di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam xam ne du respect ndax muy tudd turam fanam ak njaboot gi yëpp waaw waa daaru xudus gi yëpp di leen ñaana xam nga suñu a gën jëm yàlla yóbbuñu si jàmm ñëw ak jàmm ci bay Seydina Mohamed bébé am nga jabar non taxagu ma soxna nag wax dëgg yàlla am nga gel waa am na ko sama xel nekk waxuma am na su ko sa xel ne ndax am nga gel booy génneel am na ko sama xel nekk Babacar anamu mooy fi Dakar wala dëkk non mu ngi mu ngi fii wax rek mooy mu ngi fi Dakar. mu ngi Dakar a ngi gisee. non gisante wu nag ñu ngi déggante nag. mosoo du ma seeti jigéen. am nga idol ci làmb. waaw su ma amee idol ci làmb moom mën naa ne njaaxum la. njaaxum ndax euh, dañoo nekk ay xale. demee ko duli Cheikh Mbaba. mën naa ne Babacar li ma wax lu yàgg la. mais dafa des sama xel sama xol ba léegi. di kontaan ak booy yi. mu ne ma ñi ngay bëreel nii taxul nga mën a bëree. dañoo di kontaan si mag yi. mu may jël ñuy contact damay bëri loo ma sonn may ma confiance ma daan ko su ma ñëwee du ma reer du ma du ma du ma nelaw dama ciy kontaan ndax daan gi ma ko daan ndax boobu xam naa moom a bëri moo mën su ma xaroo ba daan ko rek xam nga damay def ay xam nga may jàngal ba xëy na entraîneur yi fa newoon sax dañu doon seetaan man ak moom mu nu jàngal lu bëri ci làmb ba tey ñeewuñu mbër ci làmb muy takk ngeem mu nekk nit ku baax nag suñu amee combat da ciy sonn lool mën naa ne moom njëkk a takkal ngeem Dakar mu bëree ji daan ma def 10 combat may takkal ngeem deux combat ñëwul takkal ma ngeem yàlla suñu borom am na mu demee sama sama onzième combat ma war a sama onzième victoire ma daan daam seen ba wala jógee ay jàng la nekkoon mais dafa bàyyi lépp ñëw takkal ma ngeem ne ma damay si ngeem su loolu damay delluwaat la ngeem mu ñëw takkal ñu du kenn yàlla la ndax yàlla mooy jubale ay doomu aadama ak sama xarit boo caw seex yi waaw ku ma xam-xam maak ñoom waaw wax dëgg yàlla sama nit lañ nit ñu baax lan ak sama doomu day mortal a ndaw mën naa ne boobu sax fekk ko fi xam ne daa amoon ay ay feebar moo tax isaat gisuñu ko fa mais loolu yàlla suñu borom saafara na ko ndax yàlla mooy te saafara na ko ak suñ papa Ilimaan bi nekk Kasoor ak waa Kasoor yëpp la ñu nuyu bu baax a baax seewu bébé julde di nuyu ka waaw staff bébé julde bi yëpp ma leen di béggee bu baax a baax ndax ay nit ñu baax lan joxuma leen fukk nag du ma bëree combat ba jox si kenn ñaar dërëm barke alxuraan ñoo yëkkat seen alal di ko jox di ma ko jox combat avant combat après combat ak pendant le combat lépp duñ bàyyi ak suñu grand Samba Diouf Colobane di nuyu waa Colobane gi yëpp ak suñ kosu bodi mag si ñu koy nuyu bu baax a baax di sant yàlla bu baax alhamdulilah kontaan ci yow waaw Babacar bég naa ci yow nag wax dëgg yàlla nit ku baax nga waaw ndax ñoo bokk dëkk ñoo bokk lépp mais teew bu nekk ci làmb xam nga da ngay wane ne sport moo si yóbbu doo faral kenn da def la war loolu nit ku baax rek moo ko mën di la ñaanal yàlla li nga bëgg si sa carrière yaa ko xam yàlla suñu borom defal la ko ak sa cameraman Talla di wax jàmm rek moo xam ci réew mi yàlla na yàlla defal jàmm ba luñ dugg rek yàlla suñu gaynde yi kaan biñ jëm di ñaan yàlla suñu borom ñu indi ñu coupe bi ndax moom lañ soxla loolu la ñu mën a ndax instant yi Sénégal yëpp génn nañu en masse di leen supporter di ñaan yàlla suñu borom jàppale leen ak seen entraîneur Aliou Cissé ba lépp lu ñu sumb rek yàlla dugal leen ci defal leen ci réussite ban andi coupe laa koy def ndax Bawol yëpp benn lan ñu ñëw fii def ay 100 pour cent fii 100 pour cent fii dañoo paas ñëw bu daje fi rek mais ñun dañoo bokk Bawol mbëri ak kon 100 pour Bawol bu amee loolu lu may neex la nañ ci taxaw ñu gën ci dëgëral loolu xam nga bawal gi yëpp benn la ñu jàppante bokk ndey bokk bàyyi démb kontaan ku njaaytin laa nekkoon combat am di ko ñaan yàlla suñu borom may ko ndam sama turandoo julde de daa bëri la passé ñaaka di ko wax divorce amaat na combat la set di ko ñaan yàlla naa waa Sénégal gi yëpp dégg la jaajëf